xam nga kenn ku ne ak sa xarfa xuufa gis naa ñu naan ci video ñu génne laa ilaha illallah allahu akbar allahu akbar ñee naan yaa rasulallah kenn ku si nekk bëre la rek dangay ngay ngemb kay ngemb Sénégal nag macha allah ñun leen ëpp sëriñ ñu ñoo ëpp ñi ngemb ñoo gën a yegg